alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa mala mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ni mooy sos fan yi ak weer yi di ko sant moom mi nga xam ni mooy jeexal at yi ak jamono yi di ko sant moom mi nga xam ni mooy jàppandal lu jàppandi waaye di dogal lépp lu ñu dogal moom mi nga xam ni moo xam waru bët yi ak li dënn yi di nëbbu di seede ne amul benn buur bu dul moom yàlla subhanahu wa moom dong moom bi nga xam ni mooy jëggalaa bi mooy ko yeyoo sant di seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la di ndawam moom mi nga xam ni moo gën ci ku ñu digal waaye moo gën a màgg ci ku ñu ci aji digle moo gën di aji digle waaye mu gën a màgg ci ku ñuy digal di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu dolti ci moom xéewal ak mucc ak barke def ko ca njabootam gu laab ga ak saxaabaam yu sell te yàlla fulal leen seenu pay ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñuy dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla mu kawe mi dëgg gi ragal tey tuub di dellu di jëm ci moom yàlla subhanahu wa te di ko topp di ko topp ci jëf ay ndigalam di ko topp ci moytu ay tereem su ko defee ñu mën a am ngërëmam ndax ngërëmam loolu képp moo koy maye mooy topp ko ci di def ay ndigalam di moyu ay tereem yàlla nañ ko yàlla yombal mbokki jullit yi suñu xutba tey ñu ngi ko fas yéene joyal ci euh, ndeetal at mi ndeetal at mi maanaam at mi di dee maneen at dugg si mbokki jullit yi eh, at yaa ngi dee lu bari ñuy fekkee at yaa ngi dee lu bari ci suñ kanam ñuy fekkee waaye loolu booy seetlu dafa mel ni eh, dolli wu ñu ak càggante ak di nelaw rek te yeewu te yeewu ci réalité bi mbokk yi at yi jeex ay at di dugg si njàngat yu bari moo ci nekk yu war a jàngat waaye daf ñoo war a yee ci nelaw yi ñuy nelaw waaye daf daf ñoo war a soññ ci càggante giñ nekkee mbokk jullit yi at mi jeex xam ngeen ni ñu ngi ci ndeetal atum jullit mi di mille di mille quatre cent quarante deux dugg at mu bees muy mille quatre cent quarante trois ci atum gàddaay mi mbokk yi at mi je dee muy 1442 euh, ñaata ci ay xew bakkan yu lañ ci dégg ñaata ci ay xew-xewi bakkan yu faatu lañ dégg maanaam ñaata bakkan la at mi faat maanaam ñoo faatu ci at mi ñaata ci ay njàqaree ki tiis ak i nattu moo wàcc ci ci li ñu wër ci àdduna bi ci ay feebar ci jafe-jafe ci ay njàqare eh, ci ay yàqute ci kaw suuf ci at mii nga xamante ni moo dee léegi waaye bu ñu xoolee ñi jiitu nga gis ñi ñi gane ñi gañe ñi gañe ci at yii de mooy eh, ñi nga xam ni ñoo ragal yàlla subhanahu wa ñi nga xam ni ñooy bàyyi xel seen borom di farlu ci ay ndigalam di ko def di farlu bu baax di bàyyi xel ay tereem di ko moytu ñooñu kepp ñooy ñi gañe ci at mi waaye ñi perte ci at mi mooy ñi sàggane seen digganteeg seen borom ak luñ mën a gane gañe ci at mi lu wuuteeg euh, ngërëmul borom bi euh, teewul ñu bokk ci ñi perte kon ñi perte dëgg mooy ñi sàggane seen diggante ak seen borom mbokk yi am at wàññiku na ci suñ dund yóbbaale ñu bari bàyyi ñu fi ñun at mi tàggatoo nag képp koo xamante nii at mi tàggatoo na ak yow ci jëf yu baax nga xam ni boo dafay inventaire sa at mi weesu mi tàggatoog yow nga xam ni ku farlu woon ci jëf yu baax nga sa digganteeg sa boroom say julli say woor say yële suñu borom sant nga xam ne sa digganteeg moom la waaye ku farlu woon nga ci yu baax ci sa diggante ak say moroom ci di jëflanteeg ñoom ni yàlla bëgg nga ko jëflanteeg say moroom képp koo xam ne noonu nga tàggatoo woog noonu nga tàggatoo ak at mi ak at mi Euh, kooka mbégte ñeel na ko kooka atam pétul atam yëpp mbégte la waaye koo xam ni dafa sàgganoon ci at mi daf inventaire xam parce que ku nekk mën ngaa régler sa bopp sam at ndax ku nekk yàgg na xam sa bopp xam nga say pas-pas est la dëppook la yàlla bëgg nga pas nga fas ko la wala déet xam nga say jëf est-ce que la dëppook la yàlla bëgg nga ko koy jëf moom la wala déet sa digganteeg sa borom say julli say azaka say koor li la waroon ci at ñëpp ci ay jàmm yàlla yoo xam ne sa diggante si borom la xam nga fan nga ca tolloon waaye sa digganteek say boroom ci ay jëf xam nga na nga ci toll kon ku rek lee gis ni yow da ngaa sàgganoon ci at mi passé càggante nga tàggatoo moom kooka war ngaa laxasaay waat bu baax a baax jéem a jël waneen dundin ci at mu bees mi ngay dugg mbokk yi at mi buy dee bu ñuy tàggu di dem nekkul rek fukki weer ñaar yuy jeex di dem nii mbokk yi at mi buy dem suñu téeree jëf lay lem yóbbaale suñu téeree jëf lay lem yóbbaale ku nekk loo jëfoon ci at mi loo waxoon ci at mi sa pas-pas yi nga fas ci at mi sa jëflante yi nga jëflanteeg li la ñi la wër ci at mi say melokaan say jikko lépp at mi la koy lem yóbbaale fan la ko jëme fa sa boroom muy xaar sa arrivé yow boo demee doo fekk virgule lu ca manqué di la at mi yóbbu ci ay jëf ma nga fa du sànq laa yadullu rabbi wala yansa suñ borom li ñuy jëf dara du ko ci réer dara ci sànku du ci fàtte dara lépp la nga ko fay fekk wajadu ma amilu xaadira ku daseeg sa borom la nga jëfoon lépp da nga fekk mu teew kon at mi du dee nii rek simplement ñu dugg ci at mu bees waaye at mi buy dee day yóbbaale suñuy jëf jëf yooyu nag at mi bu demee day seede suñ jëf yi benn mu nekk seede bu lay layal wala mu nekk seede buy layaw yow bu lay layal mooy ah suñ borom de kii man fukki weer ak ñaar yi di man at mi wax dëgg yàlla ku farlu woon sama diggante ak yow la woon ci li ko sant ndax at mi moom fekke na lépp xaw ma ko fekkul waaye at mi moom fekke na at mi ci ay bisam at mi ci ay weeram at mi ci ay heure at mi ci ay semaine at mi ci ay minute at mi ci ay seconde am lépp la fekk moo xam nga wéet moo xam nga wéetiliku si lépp moom at mi fekke na moo tax at mi daf lay seede fa yàlla fa yàlla subhanahu wa su ko defee loolu lu jar a bàyyi xel benn mu seede nekk seede bu lay layal wala mu nekk seede buy layoo ak yow te mooy seede ni yow mii kat say fan say weer sa at mi da nga ko sànkoon ci lu naqari yàlla subhanahu wa kon mbokki jullit yi euh, war nañoo xoolaat bu baax euh, lii page yi tourné ci suñuy jëf suñuy téeree jëf page yooyu lan lan moo ci nekk war nañ koy nafar war nañuy nafar suñu page yi téere yi jëf war nañ koy nafar bu baax lan moo ci nekk bu fekkente ni lu lu tegu ci yoon lu gërëm loo borom bi moo ci nekk ñu fexe mu sax te yokk waaye buñ bu ñu xoolee nafar révisé suñu page yi jëf gis ni lu naqari suñu boroom moo ci gën a bari ñu fexe koo gome ba du dem fa yàlla gom ji mooy tuub ko waaw tuub ko effacé ko ndax tuub mooy liy effacé li baaxul ci si téere jëf mbokki jullit yi tuub nag du wax ay astaxfiru astaxfirullahi astaxfirullaha kese yu simple déedéet loolu kese wax ji kese duy tuub tuub mooy li ngay def te mu wóoral li jaaduwul nga bàyyi ko bàyyi ko da nga koy li ngay def danga koy li ngay tuub da nga koy bàyyi yaa ngi nekk koo xam ne da ngay faat ay waxtu dangay ngay faat ay waxtu loola pour yàlla jégal la ko waxtu yi nga faat lu mu bari bari pour yàgg jég yàlla jégal la ko lu simple la te yomb ndax li ñuy def ci ay bàkkaar maanaam wàññiwul suñu borom dara tere gi ñu ko suñu borom di tere suñu suñu ay ak suñu alkaande moo ca nekk moo tax mu tere ñu ko moo tax jàmbule bi lu ay bakkaaram bari bari bari bari bu ko tuubee tuub yu ànd ak sarti tuub suñ borom jéggal ko ko kon tere gi pour suñu jàmm la ak bañ suñu alkaande waaye wàññiwul yàlla dara moo tax tuub gi su dëggoo ci yow yàlla jéggal la ko kon yaa ngi yaa ngi nekk ci euh, lu dul yoon te mooy yaa ngi bàyyi ay farata pour nga tuub loola nag mooy farata yooyee ngay bàyyi da ngay laxasaayuwaat ci bañ a bàyyeeti farata loolu mooy benn saat tuub la ngay tuub da nga koy da nga génn ba set ca bu fekkente ni luñ tere woon nga ne ca la tuub ji koy tuub da ngay da nga génn ba pare boo ca génnee nga rëccu def bi nga ko doon def mu naqari la nga mititlu ko waaye ba ca topp mooy nga fas yéene ne sa dund dootoo defati lu yàlla tere ñetti sàtt yi bu dëggoo ci yow yàlla baal la sa tuub yàlla nangul la sa tuub mbokk yi lu yomb la lu simple la waaye mi ngi mën a nekk ci jamono bi ngay dundee jamono yi ngay am ay at di fekk ay at di fekk ay fan di fekk ay weer ci la sa tuub di mën a jàppandee waaye ñi nga xam ni tey amatuñuy fan yu ñuy compter amatuñ ay at ñuy dee ci seen kanam amatuñ ay weer yu de seen kanam ñooñu buntu tuub tëju na tëju na ci ñoom mbokk yi ñun ñi ngi dund buntu tuuba ngi ubbi ko suñ kanam nanu tuub dellu ci yàlla nañu joxaat suñ bopp yàlla tuub nag ba ca njëkk ba ca njëkk te nga xam ni bu amul maanaam beneen tuub du yomb mooy sa digganteeg sa boroom maanaam tuubal sa xol tuubal sa xol nga fexe ba sa xol bii nga génne ci dul yàlla def ci yàllay kese nga fexe ba sa xol bii nga génne ci dulul yàlla def ci yàllay kese foofu lu tuub di tàmbale ndax sa xol bi fii ak leneen a ngi ci lu dul yàlla loo tuub tuub di nga dellu ci la nga doon tuub loo tuub tuub waaw la tax ngay tuub ba mu wóor ni jaadul di nga ca dellu bu fekkee sa xol bi yàlla kese newu ci kon euh, li njëkk a war ci aji tuub mooy mu tuubal ab xolam fexe ba xol bi dulul yàlla génn ci ba set yàlla kese na ci bu ci yàlla kese nekkee rek leneen loolu tuub di nga ko mën a bu dee lu ñuy tere di nga ko mën a ba bu dee lu ñuy digle di nga ko mën a def mbokki jullit yi euh, njàngat mu bari mi ngi ci at yiy jeex njàngat mu bari mi ngi ci at yiy jeex mbokki ñaata boroomi ndombay tànk ñoo faatu ci at mi ñaata boroomi daraja ñoo faatu moo xam ci diine nga amee sa daraja moo xam ci àdduna nga amee sa daraja ñaata boromi alal ñoo faatu ñaata boromi juddu ñoo faatu lu jare bàyyi xel ni ñuy demee en ni ñuy demee wuutewul ni ñuy demee ni ñuy faatoo wuutu wuutewul de ku faatu te di jullit li lay defal mooy summi say yére sang la sang la jullee la jébbal la sa borom ñépp borom alal jeeg ku ñàkk ki borom dombay tànk yeeg ku suufe ki comme euh, mën a doon boo faatoo même façon la dem loolu war naa wane ni fañ jëm lenn fa ne lenn fa ne muy borom bi subhanahu wa fa ne bàmmeel gën jëm yàlla fa ne waaw ñi faatu moom seen kër yi ñeneen dëkk nañ ko waaw seen alal yi séddoo nañ ko bal seen soxna yi sax ñereen takk nañ leen ñaari semaine ñetti semaine weer gën jaabari ci lañ lay jooy fàtte la doo sa faatu du tee dund gi taxaw dund gi day continuer montre bi nga takkoon boo faatee du tax boo faatoo du taxaw day continuer mooy wane ni activité yépp ay continuer ak noo mën a tollu boo faatoon lépp ay continuer du taxaw dara du taxaw yow nag foo jëm ñi nga séqaloon àdduna yépp débarrassé wu ci yow jébbal la sa borom war a régler say jëf sa at yi ñu fi def mu régler ko sa fan yi mu régler te leneen amu fa lu dul loolu biir bàmmeel leneen amu fa lu dul loolu ah en tout cas ku gëm li yàlla wax ci alquran gëm li yonent salaa salaam wax wuutewul ni bàmmeel dara newu fa lu dul fekk fa say jëf ñi nga séqoon àdduna ñëpp débarrassé wu ci yow ba set ñu jébbal sa borom keroog ñëpp ay nangu ñëpp lay nangul sa borom ñoo koy wéetal ñu tawxiid wéetal gi ñu lay sant ci àdduna keroog ñëpp la koy nangul dañ naan koy jébbal kan boromam nga wéet tawxiid bu bu sell ngay duggaale ñëpp a débarrassé woon yow benn boroom nga am mu yàlla jébbal sa borom foofa nag am na question yu lay laaj day laaj sa yonant sa diine sa téere ak sa boroom question yu moo nekk bàmmeel mbokki jullit yi ñu ngi dund di am sens su fekkee nanu tuub feebar yi bari na dee bari na te kenn xamul kañ la sa bul sa tuur kañ la bis bu jot ay deeyi mbetteel rek ngay gis deeyi mbetteel kese ngay gis te buy ñëw dara mënu koo téye koom du koom-koom du pexe du xam-xam dara du ko téye day agsi day ñëw ñi faatu ci at mi moom doy nañ misaal waaw toogal rek nga séminaire nga xool ñi faatu ci at mi waaw couche bu ne faatu nañ façon bu nekk dara daraja bu nekk faatu na fi benn façon lay doon kon mbokk yow mi dundal ni am nga chance yaa ngi fekke yaa ngi man a wàññiku nañ wàññiku li ñu dund ci mu jaaxal ñëpp wallahi dara du ko wëlbati loolu ak waññiku wàññiku gu sell wàññi ko ci xol yi dindi lu yàlla ci xol yi def ci yàlla wàññi ko ci jëf yi wàññi ko ci jëflante yi lépp ñu xool ni ko borom bi bëgg ñu dund noonu mbokk yi loolu moo ñuy jural eh, jàmmi àdduna jural jàmmi àllaaxira te kii dund nag amali na sens boobu waaye ki faatu moom sensam boobu jeex na yàlla yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla def dëgg di dëgg-dëgg jullit borom bi subhaanahu wa taala yàlla nañu may ñu at mi ñuy jeexal luñ ci defoon ci ay rëcc rëcc mu jéggal ñu ko waaye luñ ci defoon ci ay euh, mbaax mu fulal ñu ko te nangul ñu ko yàlla na nekk atum njéggal ak yërmande ci ñun yàlla na yàlla def suñu at mii ñu jublu si mu nekk atum mu barkeel at mu ñu sant at moo xamante ni yàlla def ci ubbi suñuy wërsëg te yaatal ko defal ñu tawfiq ak njub yàlla ñu ko yàlla defal allahumma axtim bi salihaati amalana وأصلح لنا جميع أحوالنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخر وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة يا كريم يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله